Bonjour à tous et à tous merci de nous avoir suivis merci de votre fidélité de nous rejoindre ci senego.com tey nag suñu entretien exclusif ñu ngi koy amalee fi nga xam ne moo nekk Dubaï di euh, Sadja Sadja ak fekk fii l'international sénégalais di euh, Lamine Lamine Gueye Lamine Gueye ñu ngi lay nuyu encore maa ngi leen di fay maa ngi leen di ziar di ziar auditeur u Sénégal yëpp mhm. di ziar képp koo xam ne rek vraiment mi ngi déglu di seetaan ak euh, tout le peuple sénégalais di aussi su Sénégalais résident à Dubaï di leen jaajëfal. ñu lamin ne Lamine Lamine Gueye nekkoon international sénégalais nekk ci équipe nationale Sénégal def macha allah xam naa avant tout danañ def benn portrait avant entretien bi jàll ñu wax kan mooy Lamine Gueye euh, mën nga ñu ñëwaat tuuti sa carrière kan mooy lamin Gueye. waaw bon Lamine Gueye euh, c'est un jeune Thiessois bu démarré carrière am euh, au niveau de Thiès ASC Normandie. buur nekk à Grand Thiès après quelques années de passage ci nawetaan bi ci la dem euh, au niveau de l'US rai encore à Thiès j'ai fait deux ans après ça ci laa dem euh, JA Jeanne d'Arc de Dakar et j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe bi joué pour la première fois Coupe d'Afrique finale Coupe d'Afrique Coupe CAF en 98 donc euh, sama dernier match euh, à la moo doon final boobu c'est après que j'ai commencé ma carrière professionnelle en Tunisie donc je suis resté 4 à 5 ans après Tunisie je suis venu ici à Dubaï donc pendant 9 ans ouais. Lamine Gueye joué nga Dubaï 9 ans sa carrière professionnelle li ko joué Sénégal comme ni nga ko waxee avant ngay dem euh, Tunisie ci biir carrière boobu nan la demee woon. ci jaar-jaar biir Sénégal depuis bi nga commencé nekk ndaw yëngu ci wàllum football bi voilà. waa bon c'est tu dirais comme on dit tout moment était difficile parce que début euh, y avait pas c'est que la qualité était là mais bon ya avait pas mal de personnes yoo xam ni gëmoon nañu exactement que je pouvais réussir parce que j'avais un boo xam ni moom li mu gëmoon mooy jàng bi donc euh, c'était son loolu la bëggoon ñu def ko euh, ndem si yàlla suma yaay moom. Euh, li ma li ma mës a njëkk a wax mooy parce que dama jël décision arrêté jàngi pour football bi donc tout le monde n'était pas d'accord la seule qui était d'accord c'était ma maman mais benn kàddu la ma bàyyil mooy lépp looy def ci àdduna rek jox ko gëddam boo demee ba jël décision sax ni sàcc nga bëgg a doon joxal sàcc li mu bëgg doon donc aujourd'hui si tu ci football bi sois fier de toi si ne l'es pas bul d'autant plus que j'avais des petits frères yoo xam ni bi ma bàyyee jàng ne damay football sama premier salaire euh, j'ai euh, comment dirais bi ma ko recevoir dañu bàyyi jàng ne dañuy football donc euh, j'avais je devais prendre le courage à deux mains donc aussi j'avais une forte pression derrière moi donc sama réussite ça dépendait aussi de mes frères et alhamdulilah bi ma nekkee professionnel mes petits j'ai amené mes petits frères ñu rejoindre ma eux aussi ils ont fait une bonne carrière professionnelle donc sant yàlla mais donc l'objectif c'était de devenir professionnel ba li ñu am tey ci àdduna football moo ñu ko may donc dañ ci sant yàlla. nan la demee woon début bi comme ni nga ne dafa xawoon difficile est-ce que mën nga ci ñëw un peu rek. voilà difficile difficulté yi c'était bon xam nga tey boo juddoo ci benn famille boo xam ne yaay taaw nga war a toog ne bàyyi naa jàng damay football yi. les moyens n'étaient pas la parce que je dirais que anecdote boobu dama koy wax booy tout le temps c'est mon maa ko am bi ma demee en première division. sama premier godage bi nga xam ne maa ko moomal sama bopp maam kam bi ma demee première division donc euh, dañ doon taqale nekk ci jaaruma ko de foot bon parce que je di que don bu nekkoon ci man la à part que j'ai fait mais bon da ngay nit ñi du ñu gëm nii vraiment que nii le choix que t'as fait c'était le bon choix du may il fallait se battre il fallait se donner à fond pour que nga convaincre nit ñi que ni li ngay def nii mën nga ko te am nga ci am nga ci yaakaar quoi donc euh, c'était pas facile comme je l'ai dit rek au niveau de la grande famille parce que tout le monde disait à nangay amee sa doom muy sa taaw nga war ko bàyyi ne day bàyyi jàng ne day football yi donc euh, benn fa kii la woon bu teg woon suma kaw donc il fallait coûte que coûte que je ci football bi et donc euh, loolu moo gënoon diis ci affaire yi quoi voilà mais côté parcours parce que côté parcours comme je dis bon y a un moment donné demoon naa ba bàyyi football demoon naa ba bàyyi football parce que nekk Thiès bon nekk xale à l'âge de 18 ans 19 ans di jouer première division donc j'étais en quelque sorte benn star bu ndaw ko <laughs> j'arrivais pas à gérer ça donc topp yi fu xale ba benn sans football bi dama ko tegoon de côté mais alhamdulilah j'ai été récupéré par la Jeanne d'Arc de Dakar c'est en ce moment là que j'ai été relancé ci football bi quoi donc ba tey li xew-xew. bi nga demee Jeanne d'Arc de Dakar. bon bi ma demee Jeanne d'Arc parce que maa ngi dem Jeanne d'Arc par le bien de Youssou Touré si yàlla bi ma demee aussi j'ai trouvé des gars yoo xam ni euh, vraiment je m'attendais pas à jouer dans cette équipe parce que des nit ñoo xam ne dama doon seetaan télé bi euh, comme euh, le capitaine Lamine Boub il y avait Lamine Boub qui était notre capitaine il y avait Pape Malick Diop il y avait Cheikh Sarr Pape Ñoxor Fall Aliou Diallo Aliou Diallo des gars yoo xam ni des joueurs de renommée on avait comme gardien Waly Ndiaye donc c' était un milieu boo xam ni comme je suis milieu terrain milieu bu xat la woon donc c' était pas facile vraiment euh, ba intégrer ci ci ci ci équipe boobu mais bi ma ñëwee comme y avait Bamou Fall comme entraîneur sama première séance d' entraînement daf ma gis rek ne j'ai besoin de ce gosse donc ci la mu ñëw ànd ak euh, ndem si yàlla Omar Seck c' était notre président au temps étant aussi président de la fédération mu jël ma euh, dem dem suma kër ñu ànd jël suma passeport on m'a fait une au début c'était pas facile parce que euh, comme je te dis rek jour yi newoon en ce en ce moment-là à la Jeanne d'Arc pratiquement c'était les jours de l'équipe nationale autant donc c'était pas facile de trouver une place mais je me suis battu et aussi ñoom it ñu jàppale ma donc j'ai j'ai j'ai intégré le groupe et j'ai commencé à jouer. ok bi nga jógee Jeanne d'Arc doon jeune. dem Tunisie. voilà nan la. ndax amoo woon ci non parce que ak porte bi ma duggee Tunisie. parce que on était venu jouer une finale de Coupe CAF avec la Jeanne d'Arc. c'est après la finale que j'ai été repéré par un club donc bi ñu ñëwee ñu waxtaan ak Omar donc euh, bi ma duggee j'étais venu comme comme euh, je dirais pas star mais au moins une équipe nit ñu qui a été reconnue au niveau de la Tunisie donc euh, c'était pas tellement difficile. mais bon anecdote bi mooy bi ma ñëwee resté dans ce club dama def foofu une semaine après le président Omar Seck a demandé au club de me laisser revenir au Sénégal pour préparer mon retour quoi parce que j'étais venu pour jouer une finale donc euh, dama bàyyi ma retourner au Sénégal comme ça préparer sama bagage pour ñëwaat quoi bon bi ma ñëwee toog Sénégal moom it il voulait coûte que coûte qu'on me fasse un très bon contrat une bonne prime de signature et tout les choses Donc, je suis resté au Sénégal pendant deux ou trois mois. je devais retourner la semaine qui suit. Malheureusement, le mercato était fini. Après, Sidat Sar, entraîneur, moi, je suis venu à mon top. Le défi, je en Tunisie, j'ai dit bon, y a eu des discussions entre l'AGA et des trucs comme ça, donc ça n'a euh, trois jours après, il m'a envoyé mon billet, je suis parti en Tunisie. Et directement, j'ai fait les essais, trois, quatre jours, j'ai signé. Quoi. voilà donc j'ai entamé mm. là une bonne carrière avec une équipe boo xam ni jusqu'à maintenant damay jokkoo ak ñoom ci ma maison Gafsa donc euh, j'ai fait deux ans c'est après que j'ai été recruté par un grand club là-bas le Stade tunisien de Tunis après foofu laa jógee du jeu après Zarzis je suis venu ici à mm-hmm. aussi nan la nga euh, avec Tunisien. bon moo loolu tamit euh, je dis rek chance la woon quoi parce que dafa amoon tunisien bu waroon ñëw recruter un certain joueur bi muy gis jour boobu ñëwoon pour recruter ko ci la ma gis parce que lui c'était un adjoint ici dans ce club dans le euh, Fougera donc i m'a appelé que ni def mu bëgg yóbbu je lui ai bon je vais pas quitter la Tunisie en première division pour aller signer en deuxième division en Arabie à Dubaï bon quand il m'a proposé l'argent j'ai dit bon ça vaut le Et premièrement di que c'est boo xam bon, de jouer pour l'accession. Donc on est venu ici, à Dubaï. On est venu ensemble. Mais anecdote Bundao, moi aussi, il m'avait dit que c'était l'entraîneur, c'était pas <laughs> l'entraîneur. C'était l'adjoint. Donc aussi, j'étais venu pour faire les essais, pas pour signer un contrat. Donc, des choses que vous savez, bien voilà donc euh, euh, bon j'étais j'étais sama contrat dafa jeexoon je devais renouveler mais j'ai refusé de renouveler pour ñëw fii donc bi ma ñëwee bon sama première séance d' entraînement pareil j'ai vu le président le coach bi ma gisee rek m'a présenté au club donc puisque je parle arabe donc il a parlé en arabe que on a un nouveau joueur qui va faire des essais et espérons qu'il va rester avec nous alors j'étais choqué parce que moi j'étais venu pour signer un contrat pas pour faire des essais ah eux pas que si damay làkk Donc, euh, cours, je me suis entraîné. Et le soir, je suis allé partir avec le gars qui m'a amené. C'était l'adjoint. On s'est presque bagarré. Je lui ai mais toi, tu te foutu de moi. Et tu m'as dit que tu es l'entraîneur, que je deviens signer. Et là, j'entends le gars me dire que je dois faire des essais. Moi, juste formalité, là, quoi. Lui, c'est son adjoint, Et je leur ai dit, tu as dit, tu étais l'entraîneur. Mm -hmm. Mais bon, comme il Donc, ben amical, je me suis Alhamdulillah, tout s'est bien passé et j'ai signé. Voilà, donc euh, j'ai joué là-bas pendant deux ans. Après, on est, on est monté en première division. Donc euh, après la dem Dibal Fougera, Dibal Fougera, je défendais fait cinq ans. J'étais capitaine d'équipe durant tous ces cinq ans. Madame euh, Dibal Hassan, j'étais capitaine d'équipe aussi, la dette, capitaine d'équipe. Bobby m'a arrêté sur ma carrière, donc toutes les, à part les deux ans que j'ai fait là-bas à Fougera, Bobby m'a arrêté sur ma carrière, j'étais tout le temps capitaine d'équipe. Voilà. biir euh, ak jamono yooyu ak jamono yi day wuutee trop ndax euh, comme ni nga ñëwee woon. Mm-hmm. sa contrat bi mais ñu ñëw ci jamono yii mm-hmm. ndax euh, jóge Sénégal ñëw Dubaï di football est-ce que yomb na. non c'est pas facile bon avant li taxoon mu yomb parce que malgré que ni xaalis bi léegi léegi la ëppee mais avant li taxoon mu yomb mooy les dirigeants de ce des des avant seen yoon nekkul woon ci xaalis. seen yoon nekkul woon ko andi jour bi ko ko andiwul ñoom li leen intéressé mooy un bon joueur venu bu ñëwee amoon na njëriñ équipe bi on la fait signer mais maintenant y a trop de business dans le tey jii même man comme je rek tey bi ma fi andi ay jeunes dama leen doon andi par rapport à mon tey su ma woowee club man la Lamine directement dañ naan ma andi nga ñëw seen yoon newut ci le si le jour est bon parce que ils se disent que puisque yàgg naa ci championnat bi. donc xam naa effectivement ban jour moo adéquat ak championnat bi quoi donc euh, dañuy xool bu baax mais maintenant c'est-à-dire qu'il y a un deal entre les agents et les dirigeants donc tey c'est pas facile d'amener un joueur tant que tant que tu n'es pas proche du, du, du dirigeant faire signer le joueur pour mu am ci commission et tout donc c'est pas facile en plus que maintenant il y a trop d'agents à Dubaï agents yi dañu bari maintenant n'importe qui est agent tu donc moo yàq tuuti football bi ba tax na bon euh, tey tu peux amener un joueur extraordinaire nga yóbbu ko ci club ñu signé ki nga xam ni il a des mooy moins que lui après tu te question mais da ngay xam li xew que ni par exemple yow ki maintenant c'est pas le joueur mais ça dépend ki andi joueur bi mooy signé joueur bi boo ñëwee def deal ak le dirigeant tu le fais signer c'est bon tranquille maintenant ce n'est plus la qualité quoi si maintenant la qualité je peux dire c'est à 30 pour cent mais tout football bi business est ce que laajul organiser foogoo ne ko mën a organiser comme Sénégal n'importe quel commerçant ñëw rek ne day indi joueur fii wala benn businessman wala benn Modou Modou ñëw ne day indi joueur te amu ci xam-xam est ce que loolu amoo benn loo xam ne tey bu ñu ko tegoon problème yooyu du am parce que bari nay victime d'après ñi ma rencontré. voilà moi je euh, man déjà dama naan les responsables ce son les petits après les familles soog a ñëw ci gars yooyu parce qu'aujourd'hui euh, moi je mal un père de famille ou bien mère de famille tey benn waay nekk Dubaï il n'a rien amul benn rapport ak football il n'a jamais joué tu le connais pas tu entends juste rek qu'il est à Dubaï ne la damay yóbbu joueur mu signé tu t'es pas informé tu t'es pas renseigné par rapport à lui directement nga ne ko ok quoi donc moi je di faute première c'est eux tu vois parce que fii comme je dis rek du Dubaï day dëkk boo xam ni ñu moo gën a neex a yóbbu nit ci àdduna moo gën a yomb neex a yóbbu nit ci àdduna boo demee demander visa nga fay ñu defal la soo amee sa xaalis boo mënee fay sa hébergement ñu fayal nga ñëw fay dëkk mais le plus difficile mooy lan jël joueur yóbbu ko ci équipe c'est la chose la plus difficile mais ñi koy def ñëpp amuñu benn contact ak autorité yi mais dañuy toog euh, egsi yóbbu booy yi maintenant qu'est-ce qui va se faire bu ñu ñëwee Lamine am naa sama benn booy bu baax espérer nga yóbbu leen ko mais les contenus doo ko xam par exemple il peut venir te dire Lamine bon kii sama doomu frère la sama cousin la dafa baax mënoon papam nañ ko andi xool fekk tel n'est pas c' est un boo xam ne dañu encaissé xaalisam promettre que boo ñëwee maintenant on compte sur qui on compte sur Lamine bu ñëwee pour mu yóbbu booy bi bon comme moi je suis comme je l'ai dit depuis quatre ans j'ai arrêté ce boulot defatuma ko woon donc euh, j'ai ma chanson ku ma wax man la man nekkatuma ci affaire yi quoi parce que dugg bëgguma dugg ci ay détails bëgguma dugg ci ay détails mais pour régler ce problème ce sera pas facile parce que tey booy boo la woo tey yow en tant que Lamine nga dis ko en tant que grand frère en tant que ku xam mi ngi lay jàppee ni yow donc soxore wala bëggoo ñëw parce que un gosse t'appelle tu lui li fi xew cest di en quelque sorte nit ñi bëgguñu dégg luy dëgg nga expliquer ko li fi xew kon ni fii y cinquante mille gosses yu fi nekk yoo xam ni dañu ñëw football fu ñu mujjee ci marché bi soo ñëwee ci fura pare dala fay teggi mais bu jotee keneen ku nekk dubaay mun na ko ñëwal fii boo yaa ngi signé boo ñëwee jox ma lii ma mu ñëw après bu demee ba kale nag ci la lay ñëw rappeler ne man maa la woowoon donc pour régler ko je crois pas que ce sera facile waaw régler ko je crois que man la seul problème le seul la seule façon pour régler ce problème mooy mooy parents yi yeewu parents yi yeewu bu ñu yeewoo ku leen woo pour jël seeni doom pour andi ñu ñu jël des renseignements nécessaires balaa ñuy engagé qui que ce soit. bu doon euh, ci li ma foog ci lu normal est-ce que du équipe bu soxla joueur war ko jëlee Sénégal est-ce que joueur bi war na ci dugal sax bon xam nga tey par exemple euh, koo xam ni amul vidéo comme Sénégal yàlla ko soo xam amul vidéo par exemple il est pas connu tu peux le vendre tu peux le vendre. donc euh, tey ki nga xam ni dafa bëgg voyager et moi je suis d'accord sur ça mooy booy yi nga xam ni dañuy voyager te am amuñu benn expérience d'abord au niveau du Sénégal ils n'ont pas eu le temps de jouer au championnat Sénégal ils n'ont pas eu le temps de d'acquérir un peu d'expérience ci football tak tak rek joué nga deux ans nawetaan sa koñ ñu ne la tu joues bien sa yaay am na xaalis a papa am na xaalis nga dem voyage mosoo gëmu gis ku ko def signé d'abord man je suis pas pour man kuy voyager d'abord pour aller jouer au foot da ngay am les arguments nécessaires pour jouer ji mooy am nga expérience jouer nga championnat xam nga luy compétition comme ça boo ñëwee au moins da ngay continuer rek quoi mais léegi le malheur mooy da ngay am sa doom mu jouer nawetaan deux ans wa koñ ba ne la yaa mën a football rek sa papa ne am naa lu ma la paasal contacter un gars Lamine fii a kaa ñu yóbbu tu mais man comme je l'ai dit rek euh, la faute revient aux parents et aux voilà parce que souvent da ngay gis sax ñu andi fi booy au mois de juin au mois d' avril au mois de mai nga xam ni championnat yi tëj na benn équipe jël joueur wàcc ci dëkk bi joueur wàcc ci dëkk bi fan la jëm kan moo koy testé donc yaa a des yoo xam ni même bu ko nit xamul yow war nga ko xam tey buñ ne ne dañ lay yóbbu Dubaï dugal ci internet bi renseigné ci championnat Dubaï ban jour la tijji ban jour la tëj donc là au moins moo tax jàng baaxu si benn sax tu auras une petite idée de savoir que ni actuellement ce championnat bi ñu may yóbbu nii tëj na donc c' est pas le moment parce que ñëpp xam nañu football dafa am période mercato mais période bu ñuy jënd ak bu ñuy tëj donc bu ñu tëjee si est fini mootuñ jël donc y a tout ce tour sur l' internet quoi moi je crois que léegi ku ñu nax yow la neex yow la neex mais booy pour pour les arrêter c' est pas facile moo tax ma ne la il faut que parents yi yow il faut que booy di aussi di di renseigner quoi. mais c'est pas possible. ndax kon waruñu créer waruñu def loo xam ne tey ambassade bi war naa war na nekk war na war na nekk képp war na xam yan sénégalais ñoo fi dugg pour euh, pour foot même bu fekkee dañ koy organiser tey gouvernement bu euh, Arabie Saoudite wala. Euh, pas Arabie Saoudi bu Dubaï jéem am benn link bu muy def ak ambassade bi nga xam ne day doon genre appel d'offre ñu xool yéen joueur ñoo ñoo ñoo rempli ñoom ñoom ñoo rempli critères yooyu pour ñu mën leen a jël ci club yi wala yéen aussi yi ngeen am taxawaay bu ngeen taxawee nga xam ne loolu dootul amati du n'importe quel kii mooy importer joueur indi ko biir Dubaï ndax loolu foogoo ne moom mënul nekk. bon xam nga loolu ce sera pas ce sera impossible parce que ci visa yi doo bind euh, profession ni ngi koy defar visa. ki demande visa. doo bind ce visa bi c'est pour un footballeur c'est pour un commerçant pour un non visa bi c'est pour tout le monde tu vois par exemple aujourd'hui en Angleterre ku joué l'équipe nationale tu peux pas jouer première ligue soo amul yenn yenn yenn yenn nombre de sélections en équipe nationale si ce pays mënoo jouer première ligue xam nga donc problème boobu ils l'ont réglé aujourd'hui tu peux pas prendre n'importe qui yóbbu ko en Angleterre ne ko jouer ah, donc ça c'est impossible donc supposons tey euh, na euh, au Maroc aussi ñu ngi ko commencé soo amul dix sélections sa équipe nationale tu peux pas jouer au championnat marocain tu donc pour man le gouvernement de Dubaï pour mënoon régler loolu rek mooy loolu lay def mooy soo amul nombre de sélection ou bien su fekkee tu n'as jamais été licencié en championnat première division au Sénégal ou bien n'importe quel pays tu peux pas jouer dans ce championnat boobaa bu booy di ñëw dinañ xam ni amuñu mënuñu fee football ils vont rester chez eux entraîner wala dem feneen mais par exemple aujourd'hui pour euh, wax le gouvernement sénégalais def accord ak gouvernement Dubaï pour dire que ni kuy ñëw fii dañu war a xam ci Quel Quel c'est impossible parce que bu fekkoon aussi dañuy bind rek ne footballeur footballeur pour mu dugg Dubaï il faut ça et ça ku fi dugg doo déclarer footballeur da ngay déclarer comme quoi je suis commerçant wala je suis en visite en vacances et tout voilà ce sera pas facile man comme je te dis rek man si solution bi ma gis ci loolu mooy parents d'élèves yi yeewu quoi parents d'élèves yi yeewu mooy tey ku ci am sa doom. et ku aspirer pour être un professionnel dafa war a ju dafa war a commencer un un Sénégal googu mu nekk mu jouer petite catégorie jouer championnat Sénégal ba ñor parce que tey euh, da ngay dem au Sénégal nga dem ci koñ yi tu trouves booy di entraîner foofu ci leur dis mais allez jouer en championnat ñu naan non booy dem boo demee jouer championnat bi sooy voyager dañ lay téye mais yow ki lay yóbbu nga voyager fan gisee sa koñ impossible <laughs> mais tey supposons nga joué ci championnat Sénégal mais les recruteurs ils sont au stade bu ñu la gisee tu as la chance de voyager et boobu mooy gën a yomb parce que boobu doo ci dépenser dërëm tey recruteur bu la gis nga joué nekk ci club c'est entre les deux clubs qui vont discuter ce club dina ci gagné yow di nga ci gagné tu vois mais tey nga nekk sa koñ di entraîner en plus il s'entraîne à 7 heures du matin mais ban recruteur mooy dox ci 7 heures du mat wala dëggu ni ko donc d'une part le, le footballeur, ils ne réfléchissent pas. Quoi. Ils ne réfléchissent pas parce que, moi je ñu nax yow la un Donc, euh, moi, ce que je les conseille, moi, nous rester au Sénégal, compétir au niveau du championnat sénégalais, bah, am expérience voyager, nous voyager. mais bu ñu toog seetaan télé bi championnat Dubaï rek ah lii dafa yomb wala ñu gis un certain Lamine jóge vacances ñëw ñu ne ah fi mu nekk war naa faa mën a dem Dubaï visa mi yomb na billet mi yomb na xaaral ma dem waaw tu viens dans un pays étranger boo xam ne xam fi kenn tu te suicides voilà te c'est ce qui c'est ce qui est actuellement pas mal de gosses boo yëpp ñu ngi ci marché bi di jaay abaya et la plupart c'était des footballeurs seen famille yaakaaroon ci ñoom donc li ñu dépensé ñëw fii di jaay abaya di ci am ay 10 dirham 20 mais mënoon nañ ci liggéey Sénégal mënoon ci liggéey Sénégal mais fi ñu toll nii dañu gëm ñoom ñëpp war nañu réussir ci football bi mais yoon bi ñu koy jaaree moo baaxul yoon bi ñu koy jaaree moo baaxul nañu compétir au Sénégal ça c'est le c'est primordial voilà. dañuy des ci sport bi avant ñuy dugg ci wàllum sociétal nag ak communauté sénégalaise bi la ñuy dundee fii gis nañ temps yëpp Sénégal am na coow fédération sénégalaise de football doon def beneen élection pour fal euh, ki leen di jiitewaat ci euh, ci diiran ci ñeenti at euh, falaat nañ maître Augustin Senghor ndax àndoon nga ci ndax bokk nga ci ñu àndoon ci candidature maître Augustin Senghor. bon affaire bi deux phases la parce que tey je crois comme Augustin Senghor yoon mayoon na ko mu mu présenté wu donc personne ne peut être comme ça maintenant pour man peut-être ni ñuy fale au niveau de la fédération moo xawa a moo xaw a quoi parce que bon effectivement je ne connais pas les contenus à 100 pour cent de la fédération parce que mais ni ma déggee nit ñi di ko waxee mënoon na gën a mënoon na gën a yaatu mën na gën a ouvert pour pour permettre au moins tey jii ku bëgg a wu am chance su gagner mais da ngay xam boo liiree rek tu sais que ni même bu nit ku mënti présenté wu il gagnera jamais parce que formule bi ñuy bi ñuy voté pour élire un président de la fédération donc euh, il faut que nga am benn nit fii benn nit fii donc kooku contrôler tout le monde tout le monde vote ce sont les clubs qui votent ce sont les présidents qui votent et quand tu as les présidents avec toi c'est fini quoi que mais man personnellement je crois que c'était le moment pour Augustin de quitter voilà c'est pas par rapport à son bilan mais c'est par rapport ak période bi mu def au niveau de la fédération te plus de ça il avait déclaré que ni boobu mooy dernier mandat donc comme wax na mooy dernier mandat rek xamoon na lu tax mu wax ko donc pour moi c'était le moment de quitter c'était le moment de quitter bon concernant Madi nag je le connais pas trop bien mais boo seetee par rapport à li muy liggéey ci équipe am bon da nga ci am yaakaar quoi mais est-ce que aussi yore équipe ak yore fédération c'est mais équipe bu yéegul sax. parce que hmm? équipe bi que def na fi loo xam ne gars yi defuñu ko. c'est ça quoi c'est-à-dire que euh, moi je je vois tout le monde dire way mag Mali c'est l'avenir c'est l'avenir mais ci benn partie lañ ko jugé mooy génération foot quoi. Hmm. génération foot la yor donc ça marche bien. donc voilà donc euh, ça marche bien. mais est-ce que gérer un club est pareil que gérer un, fédération tu je veux en plus bon ni nga aussi. Euh, fédération dañu am benn système boo xam ni Augustin xam na ni muy ndàmpee ñiy kaas mhm. ku bëgg dugg ci fédération bi si pour jël sa sa sa sa gain xam nga ni ngay def mooy toogal ci média ay kaas fédération bi liggéeyul sa équipe nationale doxul ñu jël boole la ci jox la sa ndàmpaay nga noppi donc moi je crois que pour que les choses change le problème c'est pas Augustin c'est la mentalité sénégalaise faut que les gens changent de mentalité cest à ce qui sont là à dire que football bi doxul di kaas ndax li ñuy wax gëm nañ ko ils sont pour la pour le foot ou bien ils font ils sont là pour leur compte personnel parce que ni ma remarqué ñëpp c'est pareil hein j'ai pas encore vu de différence tey ñi ma déggoon ñuy kaas ñëpp Augustin doxul doxul bi ñu duggee dañu noppi donc est-ce que exactement je dis il y des gens qui sont là pour l'intérêt du foot ou bien pour l'intérêt personnel mais pour man la problème c' est pas Augustin c' est c' l' entourage quoi ñi nga xam ne ñoo ñoo ŋànk football bi dëgguwuñu quoi bu doon dëggu nañu Augustin mën na fi jóge mais tey jii boo toogee Augustin doxul football bi doxul doxul wax ñëpp ne ok quelques mois après ñu ne yaa ngi ci biir nga noppi donc pour man benn système la rek boo xam ni c' est entre eux quoi voilà. Sénégal fu mu toll ci sport baa àdduna bi xam ko est ce que tey Sénégal yem na maanaam ci vingt et unième siècle ñuy am problème ba dañuy dugal di def recours di ñaan waa FIFA di leen wax ne nañu régler lii ñaan waa CAF nañu régler est-ce que yow en tant footballeur professionnel ba est-ce que yaakaar nga ne Sénégal waroon na mën a toll fii jamono bi ñu toll. ñu am problème stade. non mais loolu loolu loolu gàcce la loolu gàcce la fii football Sénégal toll léegi ak euh, dañuy dañuy dañuy toog di ñaan naan yàlla nañu nañu homologué suñu stade gàcce la parce que aujourd'hui je crois on est premier donc tey premier africain avec tout tout tout carrément football joueurs yi ñu amoon niveau international. foofu taw turu Sénégal toll amuñu stade yu baax mais gàcce la gàcce la mais man man ni ma koy résumer rek mooy euh, ça prouve que ni ñun Sénégal compté wuñ ci football local bi pour pour pour doxal suñu football. voilà donc euh, compté wuñ ci football parce que parce que buñ compté wuñ ci football local bi. dina am au moins des infrastructures yoo xam ni dina permettre les footballeurs yi nekk sur place ñu ñu wane seen bopp mais comme suñu équipe nationale compté wul ci football local bi donc euh, ça les dérange pas mm-hmm. ça les dérange pas parce que tey boo bu ñu convoqué 30 joueurs ñëpp ñu ay expatriés lañ amul benn jour bu ñu jël au niveau local donc ça veut dire que football local bi c'est c'est pas leur priorité quoi voilà mais vraiment c'est c'est une honte quoi pays comme le Sénégal amul ay stade bon man lii sama vision personnelle la mais je me ni tey jii pour man Macky Sall pour valoriser li muy arena bi muy defar arena lu tudd bi nekk Diamniadio. Euh, stade olympique bi olympique bi pour valoriser que donc euh, na tëj stade yëpp ba nit ñu soxla ko ba xoox. mu ñëw génne ko comme ça affaire bi am valeur sama gis-gis quoi waa parce que comme ni mu defoon ak mbëri amuñu amuñu kii amuñu fu ñu bëree mu ñëw tabaxal leen parce que dañ ko dañu xooxoon dañ ko soxla biñ ko defee ils ont applaudi donc pour man aussi c'est pour valoriser euh, stade olympique bi c'est un peu politique quoi en quelque sorte mm-hmm. voilà parce que tey bu am bu ñu amoon ay stade bu stade yëpp di fonctionnel mm-hmm. tey mun defar bii les gens dire qu'on n'en a pas def si mënoon na ko def fële donc ils ont préféré fermer tous les stades ba nga xam ne dañ ko soxla comme ça bii bu ñëwee ñu ne woy c'était une euh, priorité quoi sama gis-gisu bopp quoi ça c'est c'est personnel. Mhm. voilà. ok comme démb gis nañ ne euh, waa waa ñi nga xam ne mooy CAF euh, dem nañ ba valider. Mhm. wax officiellement d'accord match Sénégal ak Togo bi war na mën a nekk stade Lat Dior comme ni nga wax léegi dem ba Sénégal di ñaan. Mhm. Euh, ndax stade Lat Dior boobu ak yéen yi nga xam ne yàgg ngeen a génn gis yeneen qualité stade yi am ci àdduna bi. ak lañ fa def plus de six cent mille euh, six cent millions pour jéem a defaraat ay quelques pelouses est ce que loolu taxawul wutu woon mën a am waaw parce que man stade Lat Dior depuis bi ñu ko réfectionné ba léegi demaatu dawaguma Sénégal ah gisaguma ko. Mhm. mais bon euh, moi je crois que li ñu def stade Lat Dior bu ñu ko defoon amitié. bu ñu ko defoon amitié. peut-être moo moo doon gën parce que amitié quand même euh, moo ëpp moo ëpp place moo gën a international. donc buñ ko ci defoon pour man mooy gën wala parce que moi je vois pas l'utilité de faire un nouveau stade de nouveau stade gisuma utilité boobu quoi parce que stade yaa ngi Sénégal mm-hmm. dañu yàqu dañu yàqu mais buñ ko réfectionné woon peut-être on aura des des stades yoo xam ne compétitifs entretien ba mm-hmm. des stades compétitifs quoi mais jël benn somme bu toll noonu def ko ci benn stade rek or que yeneen yi ñu ngi nelaw moi je vois pas que nii daal du politique bu bu ma daal mais aujourd'hui bu ñu demee comme je dis rek ba Sénégal ak premier mondial premier africain ñu war a toog di ñaan pour jouer des matchs suñuy qualification ci stade bi parce que peut-être c'est pas à 100 pour cent garanti que ni c'est c'est c'est compétitif je dis que c'est une pour le Sénégal d'accord loolu di woon benn parenthèse boo xam ne ci sport la léegi dañuy dellu si waat Dubaï pour benn 10 minutes rek mm. euh, ñu waxtaan ci wàllum séjour sénégalais yi fi nekk nga am na ñu fi yàgg seen problème mu séjour Dubaï nan la demee pour gaw nga ñëw toog fii liggéey est-ce que Dubaï lii la boo xam ne sénégalais dañu fi dajaloo pour moodu moodu comme ni mu amee Europe ak yeneen continent yi Amérique voilà. voilà bon Dubaï léegi day peut-être on peut dire que mooy nouvelle destination wu sénégalais yi bon avant bariwuñ fi woon euh, y minorité bi fi nekkoon y avait des footballeurs euh, y avait gars yi nga xam ne ñëwoon ci cargo yi et tout. mais léegi maanaam ni fi ne ci Sénégal kenn mënu ko xam kenn mënu ko jéggi dayoo comme je di rek euh, la majorité la majorité léegi ay footballeur lañu ñenn ñi jigéen ñi dañ leen di wax dañ leen di jëlee Sénégal ne leen pour ñu ñëw liggéey bon truc comme ça mais bon euh, bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee ils savent que ni du dëkk boo xam ni pour pour pour dëkku clandestin la comme comme ça se fait en Europe. parce que boo egsee Dubaï déjà comme j'ai di l'autre fois lu fi am yaa ko defal sa bopp maanaam lu fi am yaa ko defal sa bopp tu tentre toi-même yow yaay fayal sa bopp sa kër yaay fayal sa bopp sa visa bu sa visa jeexee yaay def visa change donc euh, pour man personnellement du dëkk boo xam ni boo ko boo fi boo fi boo ko maîtriser wul euh, mën nga fi toog pour clandestin euh, parce que liggéey déjà amu fi. li li li li fi am comme liggéey par exemple comme les Indiens ñu li ñuy accepté le Sénégalais du ko accepté le Pakistanais li muy accepté le Sénégalais du ko accepté euh, comment dirais-je les Philippines li ñu accepté le Sénégalais du ko accepté tu vois je dire parce que da ngay jóge Sénégal am sa métier bàyyi ko fa ñëw fii on te propose des métiers de maçon électricien pour te payer cent mille francs par mois te ci cent mille francs yooyu ci vis très difficile du loo xam tey jii Euh, mën na la jëriñ dara mais bon le sénégalais son défaut mooy il faut mu voyager naa voyager rek lu mu fa fekk muy noonu donc euh, mais du dëkk boo xam ni vraiment neex na neex na neex na euh, moodu moodu du dëkk moodu moodu voilà donc ci ñi mu gën a yomb peut-être ce sont les femmes parce que comme tey actuellement Chine dëj na lu waaye doon jënd Chine léegi Dubaï nga koy jënd donc pour les femmes peut-être c'est un peu facile pour elles par rapport ak abbaay yi tissu yi nga xam lépp Dubaï la jóge yow mën na ci ñoom donc dañuy gis léegi góor ñi dañu transféré dugg ci détail boobu góor ñi ñooy jaay tissu ñooy jaay abbaay voilà mais c' est pas un pays boo xam ne yow mën a émigré voilà man su ma doon nit di du ma parce que bu li nga fiy dépensé ëpp la nga yóbbu Sénégal. ak euh, problème mu séjour yi. pour ah. war ko renouvellement mooy li ma la sànq tey jii boo ñëwee Dubaï euh, visa bi ngay bu dee trois mois nga yor. bu sa trois mois jeexee tu es obligé def renouvellement le renouvellement c'est au euh, minimum minimum tu dois payer cent deux cent vingt cinq mille deux cent trente mille pour amaat beneen trois mois pour amaat beneen trois mois soo ko defu jour boo fi toog le premier jour tu payes trente mille francs CFA oh non euh, plus parce que trois cent dirhams la donc c'est aux environs de cinquante mille le premier jour après jour boo fi defaat tu payes seize mille francs jour boo fi teg donc imagine toi nga def fi deux mois trois mois yoo xam ni fayoo donc la tu es de yaa ngi ci dëkk boo xam ne amoo kayit. te boo waree dëkk bi nga effectivement mais bon euh, xam nga dëkk bi dañu am clémence buur bi day toog benn période rek ne képp ko amul kayit may nañ leen trois mois pour ngeen génn donc la plupart des gens ci la ñuy profité di génn donc euh, noonu. waaw bon souvent bon xam nga comme je dis rek dëkk bi dafa bëri clémence dafa bëri yërmande. surtout suñu buur bi donc day toog benn période rek ne may nañ pour trois mois ñi nga xam ne amuñu kayit may nañ leen pour ñu génn bon avant peut dañ leen doon baan mais léegi bon y a une possibilité de sortir et revenir quoi parce que je l'ai vu la dernière fois am na ñu bëri ñu ci profité génn ñëwaat quoi mais c'est pas une bonne idée aussi quoi parce que ci diggante bi bu ñu la jàppee dañ lay dañ lay dañ lay arrêté te bu la arrêté da nga dem prison ñu jugé la après baan la nga euh, rapatrier la dootoo duggati abadan Dubaay pour moi, c'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une solution. Voilà, donc c'est très compliqué. Moi, euh, boo fi liggéeyul jàppoo ci dara c'est pas c'est pas facile dëkk Dubaï voilà parce que tout dépense la tey jii ku la héberger ngay fay par weer le bed space bu dee le cinq nga dugg le quatre bu jotee le cinq beneen du la fekk daf koy fay soo ko mayul da nga koy abal keneen ñëw tëdd parce que moom fu mu dëkk da koy fay day fay donc yow da nga koy fay mu fay soo ko fayul du fay donc du la may parce que moom duñ ko may donc moo tax ma ne la c'est très difficile c'est très difficile de vivre à Dubaï c'est très compliqué très compliqué de de de vivre à Dubaï. jamono mbas bi gisoon nañ nguuru Sénégal euh, joxe woon ay ndàmpaay pour sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi di quinzième région bi. Mhm. am ndimbal est-ce que ndimbal boobu ay yegsi woon na fi bokkoon na ci. ba il paraît il paraît nag yegsi woon na fi. mais mbo mais man j'étais pas vraiment au courant parce que déggoon naa ni daal gouvernement am na benn bu mu joxe woon ba gars yi doon ko séddale. mais bon lu jëm xaw ma woon exactement ñaata mais je sais que ne am na lu gouvernement bi joxe woon quoi. ci biir dëkk ci Dubaï waaw ci Dubaï. en plus bon euh, j'ai entendu dire aussi que le l'ambassade aussi seetaaluñu seetaaluñu Sénégalais quoi. Mm. voilà ça j'ai eu des des par rapport à ça que ni vraiment bi bi gars yi ambassade bi mi ngi ci doon jàpp. Mm. Euh, bon parce que il aussi on a un ma ko. Mm. mais un gars qui est vraiment extraordinaire aussi. waa ju disponible ku oyof. parce que j'ai eu à le rencontrer une fois dama demoon euh, bis sama njaboot di ñëw ma doon defar. waroon dafa autorisation parentale donc bi ma demee j'étais parti sans rendez-vous même dama gis un certain Faye rek man ko est-ce mën naa gis ambassadeur bi donc il est il est rentré le voir il m'a il m'a on a discuté mais c'est un gars qui ouvert un gars simple boo xam ne aussi ku am dégg-dégg et j'ai vu aussi que manifestation boo am fii ci Sénégalais yi dafay ñëw day ñëw teew mais c'est un gars bu extraordinaire donc euh, paretu mbas mi dégg naa aussi que ambassade jàpp na ci ci affaire bi jàpp na ci don maa man comme yóbbu ma ko woon mais je sais nii daal am na ko wax daal mais jàpp na ci quoi. am ci kayit wala renouvellement passeport yi ñoom ñoo ciy jàpp bu baax. ak non parce que ça ça dépend pas de pour am fi kayit ça dépend pas de l' ambassade. non ça dépend pas de. mais pour fi passeport pour am fi passeport si parce que euh, man mi de wax ak yow j'ai renouvelé mon passeport ici si y six mois. donc euh, euh, waaw y a un gars boo xam ni actuellement il ba il est basé en Arabie Saoudite. day ñëw saa yu ñëw donc comme je t'ai dit grand yàgg lui aussi je le salue au passage c'est un gars boo xam ne mi ngi fi vraiment di def liggéeyam moom moo nekk entre l'ambassade et la communauté sénégalaise fii di joxe les informations yi tout lu waaye soxla rek moom la koy wax mooy def les avis de décès aussi kuñ ci war a jàppale moom moo koy wax et tout donc moom mooy def euh, comme groupe WhatsApp bi mu créé que ni le gars buy defar euh, passeport yi day ñëw tel date ba tel date nekk comme day ñëw Dubaï def fi une semaine dem Abu Dhabi def fi une semaine donc euh, ku ci nekk sa passeport di waaj a jeex même danaan ñi nga xam ne dese nañ 6 mois 7 7 mois ba 1 an mën na ñëw renouveler donc da ciy insister donc ci la gars yi di profité dem defar passeport yi quoi. côté boobu moom bon bon tranquille côté boobu moom ça va tranquille quoi ok bon le seul problème bi may remarqué fii mooy peut-être euh, mooy manque de solidarité bi am entre nous les Sénégalais au niveau am ngeen association. bon pas au courant association moom yëguma ko quoi association boo xam ni tey on a une association de sénégalais des ressortissants sénégalais à Dubaï. boo xam ni ça regroupe tous les sénégalais di cotiser par weer di toog bu ñu amee problème dem régler ko non je suis pas au courant je amu fi je crois loolu moo manqué moo manqué fii quoi. parce que tey jii. def hmm? ko est-ce que def ngeen pour mën ko lancer. bon xam nga y a des gens qui sont beaucoup plus habilités à le faire dans ce pays parce que tey man xëy na bu ma jugal di ko def ñu ma du yaa ko def. Ah, mais pourtant hmm? que def na fi 17 ans am nga fi expérience. c'est vrai bon def def naa fi connaissance. def naa fi 17 ans et que j'ai que de bonnes relations ak ñi fi nekk mais bon xam nga ñun Sénégalais dañoo xaw a yéeme dañoo xaw a waar quoi cest de dire comme je l'ai dit tout tantôt dañoo ñementewul suñu biir. Hmm. voilà dañoo ñementewul suñu biir parce que. tey jii par rapport à d'autres nationalités da ngay toog comme nii rek ma la football bi exemple. Mhm. ñun bu ñuy dem football yi dañuy kolo kolo pour fay terrain bi. mais yeneen stades yi seen association mooy yeneen nationalité yi seen association mooy fay stade bi ils n'ont pas besoin de cotiser. comme euh, la, actuellement yow ni équipe euh, l'équipe de Togo ñu ngi may attaqué pour booy mhm. boo leen waxee dañuy woo seen président. moom mooy débloquer xaalis pour fay stade bi mais ñun man je suis obligé de dire au cotisation temps bu ñu ñëwee bu matee ça va bu matul maay mottali tu vois je donc tey moo tax man la association boobu noonu euh, man su ma doon jug peut-être euh, ñi ma koy bokkal mooy peut-être booy yi ma xam des footballeurs wala des amis mais nit ñi amul jotu kenn nit ñi jotu amul kenn te pour man xaw ma lu xaw europa mais du Dubaï munoo yeewu te gisoo Sénégal bu am problème munu nekk saa yoo yeewoo am na Sénégal bu am problème mais tey lan mooy après na lay mujjee individuellement nga koy mën a régler kii seeti Lamine kii seeti diw kii seeti diw des fois man je suis au courant de ça am na une fois dama toog ci piwim bi laa toog di yalwaan di yalwaan gars yi dañoo am problème ku ñu ci a jàpp ku ci man a jàpp peut-être d'autres sont positifs d'autres dañ lay topp négativement mais bon da xam cause bi tax koy def waaw da ngay xam cause bi tax nga koy def mais man daal euh, affaire bu may bu may déplorer la au niveau des Émirats bu fekkee dinañ ma dégg mooy que ñun nationalité yi ne ci dëkk bi dañu ñu raw dañ ñu raw tey jii ñun waruñu woon am benn problème bay dem di xool grand bi wala seeti kii war am association boo xam ni bu amoon fii képp ku fi am problème association mën na ko régler c'est déguisé aux gens ñuy def des cotisations mensuelles même bu dee 10 dirham la ñu koy dugal ci caisse pour en cas de cas ku fi am problème ñu def ko mais j'ai vu que chaque fois que bu fi problème amee que muy corps bu ñu war a rapatrier wala diw bu fi am problème dañuy ket te c'est pas normal actuellement vraiment man def naa fi 17 ans am na ñu fi def 20 ans am na ñu fi def 25 ans am na ñoo xam macha allah yàlla war si gën mais bon ànd bi daal moo des ba ànd bi moo des voilà solidarité bi waroon am suñu biir daal amuñu ko. loolu daal laay déplorer au niveau de de de la communauté sénégalaise bu ne ci dëkk bi daal. xam naa mu ngi guddi nga tàggatoo rek ak euh, message boo am ko ko ñu lay seetaan ñëpp. waaw bon dama lay dama lay remercier di remercier parce que c'était pas évident aussi. Mm-hmm. waaw di remercier euh, aussi euh, toute la communauté sénégalaise bi ne ci dëkk bi di ñaanal ñëpp rek yàlla defal leen tawfeex di ñaanal booy sama booy yi nga xam ne mooy sama sama fils yi. ku ci ne rek li fi wut si si dëkk bi yàlla yombalal la ko ayfal ko voilà ku ne rek lum mu fi am mu doon sa njiglaay di profité si di di nuyu ma famille euh, Sénégal waaw borom ñaari soxna laa sama sama awo mi ngi Sénégal ak mes enfants ma famille di remercier si sama soxna bi ma nekkal fi vraiment moom it euh, moom ba léegi ñu ngi fii deux ans voilà ñu ñuy daanu ko ko di ko di ko di ne ci waar bi daal voilà di di remercier tout le monde daal di wax nag euh, moo dernier dernier message mooy fi mu mujjee que euh, il est temps que ñun sénégalais yi ne ci dëkk bi ñu ànd doon benn def une association de de sociétés pour le bien de tous les sénégalais parce que xamuñu tey jii diw mën na am problème suba xamuñu kan la donc am na loo xam jommul kenn quoi jommul kenn donc euh, ñu jàppalante suñu yëpp parce que loolu lañu fi am voilà àll lañu nekk. donc yombul euh, ñu bañ a xool ay tout ce qui est négatif te jéem a positiver lépp quoi voilà man loolu laa moom lu may lancer au niveau de ce de Dubaï voilà di di remercier ñëpp aussi. merci beaucoup. waaleykum salaam